sëriñ bi nee na mi ngi nuyu waa daayira saadatul abraar bu Përi Njaay yëpp. sunu maam ja fa nekk muy maam Njaga Njaay. maam ja nga xam ne moo fa nekk mooy maam Njaga Njaay. nee na mi ngi ñaan sunu borom yàggal ko fa te wéral ko. ak mbooleem kilifa ya fa nekk yépp soxna Soda mi ngi leen di sant bu baax. sëriñ bi nee na soxna Soda mi ngi leen di sant bu baax. mi ngi leen di gërëm. mi ngi leen di gërëm. nee na comme ni ko sëñ Moussa Mbaye mi waxee. nee na ak nijaayam sëriñ xaadim mii. sëriñ bi nee na daanaka doy na sëkk ak barke. bu cant amoon leneen bu jàlloon leneen lu dul cant danañ ko def moom. sëriñ bi nee na bu fekkoon ak cant day jàll leneen lu dul ak cant dana ko jàllale tey kon. ngeen def ndax li ngeen def tey ji lu rëy la ci moom. lu yëg la tamit. lu yëg lu mu yëg la itam. nee na tamit te lu mu am cofee lay tamit. ndax nee na pas-pas bi ngeen ko defee. ak positif bi loolee. chaque jour chaque jour. bu ñu naroon a sëriñ bi nee na bu ñu a ñu xoolee seen jëmm yi rek. faaw ñu la takkaat bi nee na faaw ñu takkaat sunu laxasaay. ni ko sëñ Moustapha mi nee na li ko ni ko sëñ Moustapha waxee rek. noonu la demee. mënoon ngeen ñu wax wax ne ab donga rek bu jaaroon ca Përi Ndiaye. bi nee na mënoon ngeen a wax ni rek am donga la woon rek bu jaar fële ca Përi Ndiaye. waaye. waaye nag. gisu leen loolu. loolu. gis mooy. la ngeen gis mooy. Serigne Touba Serigne Touba. ak ak bokk ak ak bokk. ndax daanaka mbooleem bokk ci daayira bi ñëpp. ndax nee na mbooleem ñi nga xam ne ñoo bokk ci daayira bi yëpp ŋànk ko. Serigne bi nee ñëpp ay bokkam lañ. moo rawati moo gën a seddati sama xol. Serigne bi nag nee na loolu nag moo gën a seddati xolam nag. mi ngi leen bi nee na kon mi ngi leen di sant bu baax. mi leen di gërëm bu baax. sëriñ bi nee na mi ngi leen di ñaanal bu baax. ci darajey Serigne Touba. ci darajey faj seen aajo sunu borom faj seen aajo yéen ñëpp. te barkeel seenu njaboot ku ci nekk ku bi nee na yàlla na nga dund. ba sa njaboot noppal la ci lépp. la ci lépp. ci daraje Cheikh Mamadou Lamine. yéene nañ leen ko lool. sëriñ bi nee na yéene na leen ko lool. ndax pas-pas bi. bu ngeen ko deful woon tamit. bu ngeen ko deful woon itam. ñu war leen a jàpp. nee na ñu war leen a jàpp rek nag. war leen a ñaanal itam. rawaati nag nag bi nga xam nag am ngeen taxawaay bu rafete nii itam sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax. di leen gërëm bu baax a baax a baax. ñun ñun moom duñ leen soññ. sëriñ bi nee na. moom du leen soññ de. yéen yéen a may soññ. nee na yéen ci boppam yéen a koy soññ. waaye moom moom. doo leen soññ ci benn fànn. moom moom nee na moom du leen soññ ci benn fànn. kon nag li muy man mooy. sëriñ bi nee na li muy man mooy. sant rek. ak ngërëm. nee na daal ak cantam soxna Sooda. am na fu mu tàmbalee. waaye amutub yamukaay. ndax nee na ñi ëpp ci mbooloo mi moom dañ koo fare ak wetu kilifa. sëriñ bi nee kon bu ngeen wëlbati ko waatee. wàcce seen bopp. di dajale seenu ñaq. ak seenu coona ñëw fii. loolee ngeen koy jaar ci man. loolee ngeen koy jaar ci jëmmam ji. sëriñ bi nee na loolu ak cant képp la ci man. akook ñaan. nee na nag mi ngi ñaan nag. yàgg bokk def. yàlla nañ ko yàgg bokk def nag. sëriñ bi nangul lépp te sëriñ bi nangul nu lépp nag. ci daraje Cheikhul Khadim. sunu borom defal ñu tawféex. defal ñu taysiir. mboolem seen bëgg-bëgg yëpp daal. yàlla dafa daal mboolem seen bëgg-bëgg yi ak mébét yeeg lépp daal. suñu borom saafara lépp daal. ci daraje Cheikh Mamadou Lamine. ci daraje màggalu Mbàkke Kajoor gi ak Mbàkke Kajoor gi. sëriñ bi nee na sant na leen bu baax. gërëm na leen bu baax a baax. dolle jaalewaat. xan nee na di leen gën a dolle jaalewaat. seen seen seen mbokk mu baax ma. seen mbokk mu baax ma. muy soxna Sooda Ñang daaw mu nekkoon ak ñun fii. nee na daaw mu bokkoon nekk ñun fii. ren di mu daal di wuy ji boromam. nee na mi ngi sàkkuwaat bu baax itam. yéen ñëpp ngeen koy fàttaliku te di ko dollee ñaanal. ndax ku amoon cofeel la ci seen jëmm yi ak ci seen daayira bi fu mu toll nag da ko daan waxtaane nag. ci pasteef bi ngeen amee. ak pas-pas bi ngeen amee. kon nag mi ngi leen di sant. sëriñ bi nag nee na kon mi ngi leen di sant. mi ngi leen di gërëm bu baax. sëriñ bi nee na mi ngi leen di ñaanal tawféex. ak tayseer. ju jàpp jàppandal. ñu yàgg koo teewee ay at yu bari lool. ci barkeb Cheikhul Khadim. dama ànd ku xéwal. ak ak wér. jërë ngeen jëf. jër ngeen jëf. jërë ngeen jëf kon bu ko defee ñu tàllal loxo yi sëriñ bi def ñaan. نوراني أو جالب الهارين والخسران لم يرني دور النار دنيا وانتصر الباخر بخير سنيان ملكني ما لم يكن خادني بقاؤه بالمن كرامتي كتاب عني به إلى الجنان مصنفاني محام ما تنخنها نفوسا والزوا ساخوتا فيسا إلى سوى ميت والموت لا نفوسا كلها بالفوت يمتن مقدمات الموت وكب الرفعت بالبقاء صوت موت الذين كابدوني بدر بموت النسيم انا غايني جدر ترسل موت بقاء الله اغاني الله لوجه الله لقد إذا يسر أمرا نفعني ولم يضرني ولا يضرني كل علي ولا تسال الأمراض والغمات بقاء غازل من الزمات علمني بقوله إلي البيت الرافع بالمرضية لا سكا فيكم غبرامين في وبالكتاب والأمين ملكني أمين والأمين كتاب الله الحمدان تامين خاتمة المناجحات بالخطا زلخت كان لله تبارك وتعالى عبد الله وخليل الله وحبيبا له شاعرا وباطنا وجارا له وخديما لرسول الله وجارا عني رضا ليس يريد جزى الإله المصطفى خير جزاء كما دخل بلا ووعدنا الجزاء جزى الإله المصطفى خير جزاء كما تقبل ووعدنا الجزاء صلاة من كرمه يلقى على الذي دون المراء الخاني صلاة من كرم يا الخاني على الذي دون المراء الخاني صلاة من كرم يا الخاني على الذي دون الأرخان صلاة من كرمه يلقاني على الذي دون المراء الخان أشكر الله زوال بانتفاع بكتاب دفاع أشكر الله زوار باتفاعي بكتاب وحدها وسمايا لم يلي بالقرآن والخير والخير أصحاب خير الخلق بدل ولا بديل

الغربي وعجبا من سرني سرمدا الجهل بالابن لا جلال لا يلوم من سنه سربدا

الجبا انصرني رمضان انجاني الخلاف يا ناجيت جاي لا اله الا الله الكابتن ملك ملكي بمنزل العزل الغنوات والنزل سلمت ملك لا اله الا الله teel bi bëgg na moom laa doxee yow man bëgg maa yow ngay ab donga laa jàppe ma loolu yi ñii fi teew day wóor na Serigne Touba sëñ bi da nga leen dogul ñun ay soppe li nga am ci soppe sax li ngay bëri bëri taalibi say soppe ëpp say taalibi ndax doo nga ku la xam sopp la muy koo maaseer mu sant Mbàkke wala mu def seex mu sant weneen sant te loolu lépp jom ak fulla ak fayda moo la ko may ndax bari na fi ñu ma mën a li ma sama bopp sama làmmiñ ba nga dalee ànd ba léegi musuma rus musuma tiit musuma jàpp ci foo jëm loolee nag wax dëgg yàlla dañ la ciy ñaax di la ñaanal wóor na nun na wóor yàlla ak yonent bi xanaa foo bëggut a waaye foo saako egg yàlla mën na la faa yóbbu di jéggalu baax ci kàddu gi ndax wax dëgg yàlla ay kilifa wëree si su toog ñun ñu doy waar ñii di yëkkati kàddu seen kanam waaye nag suñ boroom dafa am lu ñu boole boole ñu ko ci benn bunt ci kër Serigne Touba muy kër Cheikh Mahamadou Lamine Bara Mbacké suñ borom boole ñëwaat fii ci kër Serigne Abdou Aziz Mbacké te it dañ ne olof daf ne lu ñëpp bokk kenn mënu koo jël bàyyi morom ji kon li ci mataam mooy ñu rafetal tey soññeentewaat wax dëgg yàlla ñii sant bu baax a baax a baax ndax gis nañ taxawaay bi ci daayira yi gis nañ passeef bi gis nañ tamit pas-pas bi ndax saa suñu geesoo rek danañ leen gis te loolu ak sant yàlla baax a baax ndax loolu yombul kon loolu ñu ngi leen ci sant bu baax a baax a baax mbooleem xeeti daayira yi fi teew yëpp lu ci mel ne daayira noota guy jamaa ak daayira Thiès ak daayira bi jugee Tivaouane Pël ak daayira Moukhaddamatoul Khidma ci njiital Serigne Fallou muqaddimatul amda mbeeloom xooti daayira yëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm leneen li ci des nag mooy ab soññante suñ digganteeg suñu biir ndax dañ ne ëllëer lu mu ñaw ñaw du tee ñu koy dàggi loolu moo waral ñu war a suñu biir te yoonu Serigne Touba yi moom amul wàcc fa ñuy wàccee yàlla na yeex waaye fii ñi ngi ci dox rek moo ñu war kon ñuy soññ bu baax a baax mbooleem xeetu daayira bu ñu fi bu fi bu ñu fi tudd ñuy soññeentewaat ci bis bi nga xamante ni Serigne Touba moo ñu ko boole ci bërëb bii nga xamante ni ku ne bëgg na fee liggéeyal Serigne Touba waaye taxul mu yomb. ndax bokk na ci dëkk yi nga xamante ni maanaam ñaare mag ñi wax nañ ne foo teg sa tànk mën ngaa jàpp ne sëriñ sëriñ bi tegoon dafa tànkam kon liggéeyal fi sëriñ Tuubaa yombul bu ñu ko yàlla xiiree dimbalee ñu ci kàttanal ñu ci bañ mën a bokk ci ñu fi liggéeyal sëriñ Tuubaa war nañ ci am aw doxalin kon soxna Lo Njaay sëriñ bi mi ngi xamle ni mi ngi lay sant bu wér ak mbooleem daayira yi nga xam ni ñoom ñoo bootu ci biir kër gi sëriñ bi mi ngi lay sant bu baax yaak ñi nga xam ni ñoom nga àndal liggéey bi yépp di dagg sa itte di ñëw fii di fob sa ñaq di ko def ci liggéey bi boole kook sa kàttan sëriñ bi nee na gis na ko te itam lu na ko itam tey kàddoom it mi ngi ànd ak ñaan bu wér ci foo mën a nekk te it nee na bu fekkonte ni ak cant day romb ak cant kon mu romb ak yow ak cant kon nag loola moom ci xolam la ko tibbee jox ñu ko cant gi nag ëppoon na lii lool waaye sunu làmmiñ ñun moo ko mënt matale kon nag sëriñ baa ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax baax te booree kook ak ñaan nag sëriñ bi itam mi ngi sant bu baax a baax bàyyi Moodu bàyyi Moor bàyyi Moor Camara Baye Mor di suñu rakk di rakk ci sëriñ Ablaye Camara moom it muy jëmm joo xam ni dafa jóg rek ngir taxawu sëriñ bi bañ na ko sax ba kàddu yi nga xam ni sëriñ bi jox na ma ko ñu koy jàllale moom bëggutoon mu jàll waaye nag laa tafaalo cheyan bi xayri is ni falisnu sartun fi xaboo isaan ñun bu ñu joxee kàddu jàllale ko rek lañu sëriñ bi nee na moom it mi ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax ndax dafa jëf jëf joo xam ne ci màggal gi jëf ju kawe njort la jëf joo xam ne la tam lu jële sëriñ bi kaw la itam ci mbaaxam ak yaramit la ko teg ndax ku dem ba li ngay def bëggoo sa tur génn ca kaw nit ñi xam ko kookee ab jëfkat nga sëriñ bi nag di ko sant bu baax gàtt bi ngeen gisoon mu yeewe fii moom moo ko jaayante ci alalam jox ko sëriñ bi ngir mu def ko ci màggal gi loolu nag da koo def defaaleel ñu ko ñun ñëpp waaye nag muy ab soññee ci ñun ñëpp waaye itam muy loo xam ni dañ koo war a roy ndax lu baax la loolu itam moo tax sax sëriñ bi gën cee soññe ndax bu ngeen xoolee moom tu tànk la ci zaahira waaye itam ak jaayanteem moo toll foofu kooka nag dañu ko war a roy comme li sëñ Baara wax léegi day duggaat ci biir jëf ji ndax képp koo xam ni teew nga ci dal bi ren te teel fee teew janloo gàtt bi ñu yeewoon fii danga xam ni loola xéewal moo koy jënd waaye mu dagg ay soxlaam ak ay yitteem ak yu ma waroon a def yu bari jaayante kook sëriñ bi waaye sëriñ bi nee moom daf lay booleeg Cheikh Mouhamadoul Amine ak mbokk taali bi yii nga ko defaaleel ñu fasal la ci doole Cheikh Mouhamadoul Amine nga di ko gën a man di ko gën a man di ko gën a man di ko gën a man rek te ñu ànd kook yow nag di ko man di ko def ni nga koy defee loolu sëriñ bi mi mi ngi la koy ñaanal.